Sonko <laughs> yow <laughs> yaa yëngal réew mi yow ana ndaw si. mais ko waxal man. kan kan la may man Ndiambour Ndiamb bi mbiri laa député aw lu may ragal de da ngaa sañse nii ba toog <laughs> taal sañse yow nii sa kanam gi dafa dem sax fan ana Adja. daay <laughs> da xale yi dañ laa bañ génn tool de photo dangaa jeex sax yow. mais yow amoo problème ah. Eh, eh. <laughs> dégg naa gars yi dañ laa ragal man de bokkuma ci yow bés moo la jàppee dinaa la duma yow bés moo la jàppee danaa la duma li ngay napp gars yi laa gëmul yow ab tàppet nga. koy waxal man yow. ngay bett man ngay bett. lan moo man ngay bett. ma ko woon nii ko mais. Mhm. tooñ baaxul quoi. Euh. voilà. Ah. xaw naa ko rey. Ah? xaw naa ko rey. xaw naa ko rey fukki garde corps ak ñaar. Ah. ñoo ñëpp daw xaw naa ko rey dama koo dóor a dóor ba mu daw. Sonko seen ko muy dem. dëgg xaw naa ko rey dama koo jàpp. Mhm. ba mu ñëw ci man. nga dégg film naan rëm. waaw rëm mhm. ma teg ko. te comme ndax mbiir nii. waaw daal di koy boddi. ah. yére bi xotteeku na dafa xotteeku. waaw yii moo génn léegi Louga. ah. modd bi moo génn Louga léegi moo génn Louga. modd yére bi xotteeku. wax bi moo génn Louga xaw naa koo rey. kan xaw naa ko rey. dafa ñëw nii. waaw. waaw. du benn xotteeku de. ah yu bari la de. waaw noonu la noonu laa ko noonu la ma ko def. wadd xew la fu lay jëlu ko xaw naa ko rey. ku njëkk a dóor sa morom. dama ko xëcc ba mu ñëw. waaw nga dégg fit bi naan rëm. Mhm. rëm mhm. rëm. na ko boo xëttee taf ko poq ko nii. ko ñaar bët baa nga nii. ah bët baa nga nii de. ah doy na waar da ci ay mag wax dëgg yàlla. Ah? doy na waar laaj ko moom laaj ko. doy na waar ci ay doo ko defati de. Ah? fukki garde corps ak ñaar. waaw ñoom ñëpp daw. Mhm. xam nga man mbiri laa man doo gën a jàmbur laa du ma daw. dëgg la xaw naa ko dama ko dégg rek buddi ko nii rek. waaw nii rek buddi ah, nii rek. ah ah ani ani say daal sëñ bi ah daal yi daal yan tànku neen nga def de hmm. assemblée booy dugg da ngay simi say daal bët bi xonk na de bët bi hmm. suloo daal de hmm. daal yi waaw andi daal yi yow yére bi xottee ko xaw naa ko rek ko dóor nii rek buti nii rek dóor ko nii rek ku fañ mu dem mais ani say daal la xam naa ne yaa ko dóor kay mais say daal laa wax ani mi daal mhm. assemblée booy dugg da ngay say daal ah. dañ koy loi bees la booy sumi ah. dañ koy sumi fële fan assemblée waaw Moustapha Niasse da ngay sumi say xaw naa ko dam dama ko dóor ni pikkatu dama pikkatu eh. xaw naa ko waaye bët baa ngi xonk de ah. téere bi daa xotteeku ci ginnaaw